alhamdulilahi rabbil s wa sallallahu wa sallama ala ashraf almursaliin nabiyina muhammadin wa ala aalihi wa saxaabatihi ajmaciin amma baadu mbokki jullit yi suñu boroom subhaanahu wa taala ci coobareem dafa séddale si nit ñi li nga xam ne mooy seeni tolluwaay ci dund gi comme ni mu séddale ci ñoom tamit li nga xam ne mooy seeni am-am kenn ku nekk ak la nga woo di ko jëf ci société yi nga xam ne ci la ñuy dund moo tax nit ñi ëppante ay garaat ci place yi nga xam ne dañ koy occupé ci société boobu mu nekk ne suñuy tolluwaay du benn yamul suñuy cër ak suñuy mën-mën nekkul lu yem te loolu coobare suñu borom la subhanahu wa taala moom moo wutale ci ni mu séddale bu ko defee mu nekk ne dañuy jàppalante di mottalante kenn ku nekk di aajowoo sa moroom ci fànn moom tamit mu lay aajowoo ci fànn waaye kenn ku nekk ci ñun selon place bi mu occupé ci société yi ñuy dund rek noonu lay amee responsabilité buy gàllu ci loo sam ci société boobu ci lu koy sàmm lu koy baaxal lu koy yëwanal selon kenn ku nekk place bi nga xam ne moom la occupé ci société boobu mu nekk nag ne nit ñi bu ñu dajaloowee di dund en société faw ñu am bopp boo xam ne moo leen di jiitu bopp boobu mooy ki nga xam ne moo leen di jiite gouverner leen gouverner seen nekk yore seen i mbir di ko saytu ak di ko doxal ña ca des nekk ñuy topp ak di nangu li nga xam ne moom mooy autorité am di ay ndigalam moo tax nit ñi mënuñu dund ci li nga xamante ne mooy anarchie ak désordre faaw bu ñu dee dund en société dafay nekk loo xam ne dañ koy organiser pour mu mën a ñoŋ mën a yewoon yewoon loolu dafa dem ba àgg ci yonentu bi alayhi salaatu wa salaam daan digal ñetti nit yu génn ci tukki rek ne bu ñu ànd noonu rek di dem waaye nañu jiital kenn ci ñoom mu nekk seen amir mu nekk seen kilifa nekk seen njiit pour seeni mbir mën a nose mën a organiser wu responsabilité yooyu moom la yonente bi alayhi salatu salaam doon wax ci ne ki nga xam ne moo jiite nit ñi yore seen kàddu yore seen baat mu ne kooku yàlla da koo am lu mu ko dénk di ko ko sàmmaloo te ëllëg yàlla dina ko laaj li mu ko doon sàmmaloo mu tudd kooku laata muy tudd keneen ku dul moom ginnaaw bi mu tudd borom kër gi nga xam ne dafa nekk ci këram ak responsabilité am ci njabootam tudd soxna si nga xam ne dafay sëy ak responsabilité am ci alalu borom këram ak ci njabootu borom këram tudd ki nga xamante ni sax dañ koo jël embauché ko di ko liggéeyloo mu yore alalu jàmbur di ci liggéey ne responsabilité am dafay engagé wu ci alal jooj te ëllëg yàlla dina ko ko laaj kon loolu di wane ne ñun ñëpp kenn ku ci nekk ak selon fi nga nekk ak fi nga féete ci société bi ak place bi ngay occupé lépp lu nekk ci sa responsabilité nekk ci sa loxo ndénkaane la lu yàlla dénk ëllëg yàlla dina la ko laaj alimaamu nawawi rahimahullah di wax ne borom xam-xam yi dañ doon wax ne kooku nga xamante ni moom lañ tuddee raaci muy ab sàmm mu ne mooy ki nga xamante ni dañuy wattu mbir ñu wóolu ko ci mbir jox ko ko bàyyee ko mu ne kooku mooy ki nga xam ne mooy taxaw ci di yëwanal la nga xamante ni moom lañ ko jox mu nekk ci responsabilité mu ne li ñu jëkkee ci xadis bi mu ne képp koo xam ne yàlla dénk na la dara yàlla jox na la dara ëllëg yàlla dina la ko laaj ndax yëwanal nga mbir moomu wala ndax danga nga koo sànq ndax yëwanal nga ko wala danga nga koo sànq yëwanal gi tamit dafay dellu ci ñaari côté benn fànn bi mooy wàllu diine mooy mbaax gi nga xam ne mbaaxu diine la beneen fànn bi mooy mbaax ak yëwan ki nga xamante ne ci wàllu àdduna la jëm bu ñu xoolee nag suñ société yi nga xam ne ci lañuy ñuy dund li koy baaxal def ci lu ñu tuddee ak mbaax mbaax bu ñu ko waxee sens bu large la am baat bu yaatu la muy jàmm muy dal muy eh, naataange loolu yépp da ciy duggaale ci ay facteurs yu bari lay dellu ci mbir yu bari la waaye da ci am loo xam ne moo ci gën a am solo te loolu mu ngi gàllu ci loosu ki nga xamante ne mooy jiite nit ñi yore seen kilifteef yore seen baat te loolu moo tax borom xam yi bu njëkkoon as salaf ñu daan wax naan yàlla dina faje ci buur loo xam ne du ko faje ci alquran alimaam ibnu kathir ne ndax buur moo am sañ-sañ ak mën-mënu jaarloo nit ñi fenn ñu jaar fa bàyyiloo nit ñi dara mu neex leen mu naqari leen ñu bàyyi ko li yàlla subhaanahu wa taala di tere ci alquran nit ñi dañ koy jàng xam ko ñu bari ci ñoom di ko jalgati la muy digle itam ci alquran ñu bari dañ koy jàng xam ko lu bari ci loolu ñu sànk ko waaye buur moom li mu yor ci autorité dafay tax nit ñi lim leen di sant lañ cey mën a bañ du bari loolu moo tax mu ne yàlla dina jubbante ci moom loo xam ne du ko jubbante ci alquran dina faje ci moom loo xam ne du ko faje ci alquran loolu moo tax kon kooku ni mu nekkee benn pion bu essentiel ci suñu société yi nga xam ne lu bari ci yëwan ak société bi ci moom nekkinam ak ay melokaanam ak ay comportement am lay dépendre moo tax mu am solo lool mu am ay qualité yoo xam ne dafa war a nekk ci képp koo xam ne day jiite nit ñi yore responsabilité wu seen àdduna seen mbaax ak seen yëwanu nekkin responsabilité boobu nekk ci loxo nit nit kooku warul nekk nit ku oyof nit ku mat la war a doon ci fànn yu bari ndax responsabilité bu rëy la naka noonu koo xamante ni day jël loxoom di ko tàllal ci mbir moom di ko yóotu di wax ne nañ ko ko jox mu nekk ay qualité yoo xam ne bu ñu ko seetloo ci kuñ koy jëlee comme li nga xam ne moom mooy référence mooy suñu yenente alayhi salaatu wasalaam qualité yi nga xam ne moom moo tax yàlla di wax ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana am ngeen ci moom royuwaay alayhi salaatu wasalaam yenn ci qualité yooyu lañ bëgg xool tey ñu jàngat ko ak tey ni àdduna di doxee bi ci njëkk biñ ci njëkk tudd mooy ragal yàlla ak bàyyi yàlla xel ci lépp lu nit ki di def moo xam lu feeñ ak lu nëbbatu nit li koy contrôler ci biiram rek la mën a nekk autocontrôle rek moo mën a am ci nit mbaax nekk ci moom mais munoo am benn benn benn mbir boo xam ne di nga ko teg ci nit ba mën koo contrôler duggam génnam ak léppam te fekk ne moom nekkul loolu daf koy bàyyi xel ci biiram di sàmmonte ak moom moo tax kon fi mbaax di tàmbalee cib société mi ngi nekk ci seen jokkoo ak yàlla fi coono ak problème eh, tàmbale itam ci suñu société yi mooy bu ñu daggee suñu digganteeg suñu borom dagg suñu digganteeg asamaan jël suñu mbiru àdduna yaakaar ne li koy yëwan ak li koy doxal wàllu suñuy xalaat rek ak suñuy naxanteeg suñu biir ak suñuy jaayante doole suñu biir rek ci la mën a yëwanee yoonu yàlla nekku ci bi ñu tubaab naxee ba taxawal ay état yoo xam ni ci laïcité laïcisme lañ ko teg boo xamante ni yoonu yàlla newu ci ñun doomu aadama yi ñooy xool suñuy bëgg-bëgg ñu ko koy doxalee foofu la suñ coono tàmbalee ndax boobu waa dañuy lekkante comme ay jën amul benn être suprême boo xamante ni daf ñoo dépassé nekk ne kooku moo ñuy contrôler ñun ñëpp ñu koy bàyyi xel mais ñun suñu biir ñooy jaayante doole rek ku gën a rëy sa moroom xel wala nga ëpp ko doole noot ko moo tax kon ragal yàlla ak bàyyi yàlla xel ci lépp lu nit ki di def bu nekkee ci koo xam ne dafa yore responsabilité ci nit ñi xam ne lépp lu ciy def ak lu mu ciy wax am na buur boo xam ne moo ko jox lii nekk ci loxoom te ëllëg dina ko taxawal ci kanamam laaj ko ko ndax loolu la yonente bi alayhi salatu wasalam wax ne yàlla képp ku mu dénk mbir ëllëg dina laaj mbir moo xam mbir mooma moo xam lu rëy la wala lu néew la ndax sàmmante nga ceeg li nga xam ne moom la yàlla bëgg wala déet loolu bu fekkee nit ki da koy seet di ko xool ca jamono ab buur daan jóg guddi jël saaku def ci ay dund di wër ci këru ñi nga xamante ni bii dañoo néew doole di leen ko jox ngir jox leen lu ñu lekk te nit ñi duñu xam ne sax moom moo koy def kooku la ko taxoon doon def loolu ragal yàlla la du koo xamante ni day ñëw taxaw ci kanamu nit ñi di leen wax ne def naa nangam ak def naa nangam pour nit ñi ñoom jàpp ne ma ngay def donte sax lam leen di wax mën na bañ a demee noonu mooy bu fekkee yàlla newatu fi naxante rek ak naxaate rek moo fiy nekk ndax li nit kiy def li ci ëpp du nekk lu sincère ndax xoolu ci yàlla loolu moo tax kon nit li ko mën a contrôler yàlla la subhanahu wa taala moo tax kon ragal yàlla googu mu nekk ci ki nga xamante ni moo am ay responsabilité moo xam yu mag la wala yu ndaw la dafa nekk lu am solo ndax loolu mooy tax mu sàmmonteeg ñaar yi nga xam ne ci la gouvernance di baaxee bi ñuy wax bonne gouvernance yàlla da ko tënk ci benn aaya inna allaha yamurukum an tuaddu l amanati ila ahliha wa ida xakamtum bayna annaasi an taxkumu bil adl bonne gouvernance yàlla ci ñaari kii yooyu la ko tënk pilier yooyu la ko tënk mooy li ñu leen jox ci ndénkaane gi leen nit ñi wóolu jël ko dénk leen ko ngeen delloo ko seeni borom ngeen sàmm ko delloo ko seeni borom bañ koo sànk alal jeeg lépp da ciy dugg ci loo xam ne jox nañ ko nit teg ko ci loxoom nga delloo ko seeni borom la yàlla wax ilaa ahliha xamal la ne yow mi ñu la ko jox moomuloo ko mu nekk wax ju wax waxin bu xóot waxin bu sori waaye bu ngeen di àtte ci diggante nit ñi ndax am ngeen autorité ngeen atte ci màndute cheikhul islam nee na sàmmoonte ak li nga xam ne mooy ay cër yiñ jox nit ki ba delloo ko ci nit ñi ci li leen di amal njariñ muy seen intérêt commun intérêt général pour yëwanal seenu nekkin ak atte ci màndute ci seen diggante loolu mooy yëwanal suñu société yi mooy yëwanal àdduna ñaar yooyu pour mu mën a nekk ci nit faw ragal yàlla googu day nekk ci moom wa illaa faw mu am lu ca lu ca sooxe te ñaar yooyu ci loolu rek lay juddoo mu bokkaat ci tamit ba léegi mooy koo xamante ni am na cër bu toll noonu boroom xam-xam la war a doon boroom xam-xam la war a doon am dégg-dégg ak xam-xam ci li nga xamante ni bi yore na ko mu am ci gis-gis boo xamante ni gis-gis bu leer la yamu ci sax mais nekk nit ku am benn intelligence bi mën di sóoraale loo xamante ni bi ñëwul ak mën di bàyyi xel li nga xam ne moom lay posé tey ci ay acte ëllëg conséquences yi nga xam ne da koy am xam-xam boobu dafa war a nekk loo xamante ne luy nekk ci nit ki la ndax ku xam ak ku xamul yamul bu fekkee xam-xam dafa limité wu ci nit da ngay gis ne tañax tañaxi ak làmbatu dafay bëri ci ay mbiram te loolu lekk lekk ci yenn responsabilité yi li muy yàq moo ëpp lu muy defar comme na ko Omar ibn Abdul Aziz waxee woon ne kii nga xam ne day jëf ci kaw ñàkk xam la muy yàq moo ëpp la muy defar mu bokkaat ci critères yooyu mooy am ay jikko yu rafet nekk nit ku am ay jikko ak ay qualité humaine yoo xam ne ku jëflanteek yow wekk la mu nekk loo xam ne lu ñu ñàkkal solo ci suñ société yu mu mujj yi la rawatina ci ñi nga xamante ne ñooy yittewoo wàllu jiite ak yilif ak yi ca jëm ñi nga xamante ne bi ñooy jiite léegi ci wàllu àdduna ak ci wàllu diine ñoo gën a soxla sax ñu fàttali leen lii ndax qualité humaine yoo xamante ni nit ki da ci mën a nekkee dëgg dëgg dëgg kilifa dëgg dëgg njiit loo xam ni ñamu jiite dañ koy bëgg wekk ko nit ki sax bu fekkente ni ab noonam la seetluwaat ay qualité yooyu tax loolu tax mu respecté ko te loolu la yonente bi alayhi salatu salaam meloon moo tax saxaaba yi mu nekkaloon soxlawul woon di leen xupp ci dara wala di leen forcé ci dara lu mu leen waxul sax te ñu xam ne bëgg na ko ñoom ñooy jug defal ko ko ndax bëgg ak cofeel gi ñu amoon ci moom ndax qualité yi ñu gisoon ci moom en tant que leader dafa taxoon ñu wekk ko naw ko bëgg ko àgg foo xamante ni pare nañ pour sacrifice yu ñu du ne ñu def ko ngir moom alayhi salaatu wasalaam kon nit ki bu fekkente ni dafay nekk tamit leader jiite léeg-léeg qualité yooyu la war a wan ñi mu jiite bañ gis ko ci moom ba xam ci moom qualité yooyu lépp lu mu leen di wax ci lu baax jiitu leen ci lu mu leen di wax ci lu bon gën leen koo sori jamono ju ay sacrifice laajee sacrifié wu mu gën leen a sacrifié wu yonente bi alayhi salatu salaam keroog bu ñuy dem di xeex ji ci badar mu ànd ak abu baaba ak ali parce que li ñu yoroon ci ay waruwaay doyul ñu jël ko moom ak ñaari saxaaba ñu boole leen jox leen benn waruwaay ne day leen di def tuur ku nekk day war ba ci benn bërëb mu wàcc ka ca des yéegaat njiit bu toll ne yonent yàlla bi alayhi salatu salaam tey waxuma la sax nekk yonentu yàlla waxuma la sax nekk xalifa bi nga xam ne moo jiite monde musulman bi ab maire dong ngay nekk wala chef de quartier lu mel nii sa xel xalaatul nga koy nangu wala di ko def te moom moo nekkoon yonent yàlla bi nga xam ne moo gën ci doomu aadama yi mu nangu ñu koy boole di ko jox benn waruwaay mook ñaar ci ay saxaabaam ci ay disiplam muy yéeg di wàcc ñoom ñu yéeg ba yàgg ñooñu ne ko léegi ñun mën nañoo dox yow kese nga war mu ne leen déedéet ëppoo leen ma kàttan te gënuma leen a gënoo leen ma soxla yool ca yàlla yool bi ngeen soxla ba tax ngeen di sonn di dox ni ngeen di utee yool boobu ngir yàlla fay leen ci seen coono bi man noonu laa ko bëggee ku mel noonu boo nekkee ak moom foog nga foog nga respecté ko ku mel noonu boo nekkee ak moom foog nga naw ko bëgg ko dof ci moom ndax taxawaayu rafet yooyu nga xam ne di ko gis ci moom alayhi salaatu wasalaam musta jiital saxaabaam yi des ginnaaw bépp coono bu ñu nekk ñu gis ne moo leen ci gën a sonn lépp lu ñëw ci loxoom ci alal mu jël ko jox leen ko ba bu duggee biir këram lu mu añee du ko am Aïcha nee na dañ ko daan jox alal ci jàkka ji mu toog nit ñi wër ko mu koy séddale di ko séddale ba bu jógee day day day yëlabu dara du ko topp bu demee ñëw ci dugg ci néeg bi Aïcha da koy dégg de muy séddale bu ñëwee ay loxoy neen lay indaale naan Aïcha radiyallahu anha ndax am na lu ma mën a lekk fii ndax am na lu nekk ci kër gi ay tàndarma ak ay mburu yu wow ak yu mel noonu lañ koy mujj di ko seetal di ko ko jox pour mën koo lekk alayhi salaatu wasalaam qualité yooyu soxla nañ ko torop tey ci jamono xam nag li nga xamante ni moom la ko yàlla jox lu ko yàlla nattoo la du lu muy jël jagoo ko moom ak njabootam di ci bànneexoo ko nguuru bàyyi nit ñi ñu nekk ci misère loolu mooy qualité wu vrai leader am yërmande ci ñi nga xam ne nga jiite alayhi salaatu wa salaam loolu moo nekkoon ci moom moo tax ñi mu nekkaloon amoon wegeel gu gu rëy ko weg ndax bu fekkente ni contraire bi moo am lan lay jur ay frustration lay jur ay frustration lay jur ndax nit ñi mënuñu nekk ci benn misère bi jël seen alal ak seen lépp jox ko nit mu yor ko di ngundaan daan nekk ci lu ko neex ñoom ñu nekk di galérer nekk ci te après lan lan lan lay indi ay frustration lay indi yoo xam ne day accumulé wu di daje ba bu explosé kenn dootu ko mën a téye moo tax kon kiy jiite. dafa war a bàyyi xel qualité yu mel noonu muy sacrifice yooyu nga xamante ni moom la peuple am di def moom mu jiitu leen ci gën leen cee sax taxaw wan leen loolu bañ gis loolu ci moom buñ ko xamee ci moom rek lépp lu mu leen deflooti wala mu ñaan leen ko dina yomb ci ñoom ñu nangu ko nekk kuy jéggale nekk kuy baale alayhi salaatu wasalaam xoolal li ko waa Màkka def façon coono bu ne teg nañ ko ko fitna bu nekk teg nañ ko ko wax ju ñaaw ju nekk wax nañ ko ko néewal ko doole gàllankoor woote bi ko yàlla yónni pour mu woote ci façon gàllankoor bu nañu gàllankoor ko ko di jàpp ay saxaabaam di leen fitnaal di leen bugal ba jàpp kër goo xamante ni ci ñu ko njëkk a gëm lañ ci lislaam rey leen ci diggu màkka soxna soo xam ne da koo gëmoon moom ak boroom këram mu yaasir ñu jàpp leen daal di leen di rey ci diggu màkka loolu yépp ngir provoqué ko mu toog fi mu toog rek ñañ ñañ def loolu mu ñaanal leen yàlla yàlla dafa leen yërmande waaye mu toog wuyuwul seeni provocation loolu yëpp ñu koy def ba yàlla génnee ko màkka mu ànd ak ay saxaabaam dem ut uti ji fu mu mën a amee jàmm ndax demoon nañ ba koy faag bëgg a faagaagal yàlla musal ko ci ñoom ànd ak loolu bi mu demee ba yàlla may ko doole muy muy muy ut doole di am kàttan ba taxawal état ca Madina ba delsiwaat ubbi li nga xamante ne mooy màkka keroog dañoo ñëw ñoom ñëpp yor seeni loos ak seen i lex taxaw di lewetal ay bët ñoo taxaw di déglu lan lay àtte ci ñoom mu ne leen yéen waa Quraysh ngeen yaakaar ne loolu laay def ci yéen lan ngeen yaakaar ne noonu laay jëflanteek yéen ñu ne ko xanaa lu baax ndax wax dëgg yàlla doom ju tedd nga di doomi nit ku tedd di doomu nit ki baax moo tax qualité yooyu tamit nit ñi xam ko ci yow lu baax la qualité yooyu nit ñi xam qualité yu baax ci nit ki nga xam ne moom moo yor seeni mbir lu baax la ndax dinañ mën a dalal seeni xel ci yenn situation yu metti yi ci ne nit ki c'est un homme de qualité am na foo xam ne du fa àgg ci coxor wala ci yenn yi te moom noonu la meloon alayhi salaatu wasalaam keroog lu ne mënoon na leen ko def daf ne leen idhabu fa antumu tulaqa dem leen vous êtes libre amul la lenn lu ma leen di toppee wax ju ñaaw sax duma ko jël di ko teg ci seen dër waaye ñoo ñëpp dañoo duggaat ci lislaam kon moom xoolul moom ay vengeance ak ay problème personnel ak ay compte yu muy réglé ak ñoom ndax loolu il faut que nga nekk nit ku tollook ñoom niveau ci seen i bassesse pour mën di jëflanteeg ñoom ci noonu mais moom nit ku mag la woon c'est un grand homme dafa amoon hauteur moom li muy xool mooy jubluwaay yu kawe yi nga xam ne moom moo nekk ci kanamam mooy mission bi ko yàlla jox nu mu ko mën a réussir ci nit ñi naka la yàlla mën a musalee nit ñi ci safara ci sababam moom loolu mooy yitteem pas régler ay compte moo tax Aïcha radiyallahu anha nee na yonente bi alayhi sa wasallam musta vengé wul boppam nit musu ko def ci àdduna lu tax muy vengé wu moo ko mënoo ko provoqué ci jëmmam ak lu personnel ci moom ba ko àgg ci moom fu tax muy am yëg-yëg ci bëgg ne dafay fayu mosul am alayhi salaatu wasalaam loolu moo tax mu daan jéggale moo tax grandeuru nit danga koy natt ci mu mën a am capacité boobu capacité de retenue et de pardon mën a jéggale nekk nit koo xam ne day fàtte boppam jiital leneen ci ay jubluwaay yoo xam ne yu kawe la fan laa jëmale sama askan fan laa jëmale sama réew sama ëllëgu nit sama ëllëgu ay askan sama xeet ñoom lan moo nar a nekk seen ëllëg man looloo ma gën a yitteel ko sama jëmm ji ndax balaa mu yàgg léegi ñu gas ba mu xóot suul ma ma fanax ñu fàtte samay mbir kon man du ma dara soo comparé loolu ak sa jëmm ji fàtte sa bopp mais boo defee fixation ci sa bopp ak sa honneur ak sa nangam ak sa nangam danga yaakaar ne loolu lu lay yëkkati la fekk ne luy wàcce doomu aadama la ndax nit faw nga tuuti pour mën a yamale sa gis-gis ci niveau bu baa boobu mais nit ku kawee rek ñi nga xam ne ñoom la histoire di fàttaliku ñuy bind seen tur ci page yi histoire ñoom ñoo mën a am gis-gis yu mel noonu ñu naan def na lu toll noonu mu nekk jaloore ju rëy ñu koy ko ci histoire nit mës na yot ba fekk ko mu tëdd li lay wan ne la lu personnel sax daawu ci fayantoo jóge ci xare ñu tëdd di sieste mook saxaaba yi mu jël jaaseem bi mu yoroon lonk ko ci garab gi tëdd di noppalu di sieste ci taatu garab goo xam ne moom rek doon garab goo xam ne moom rek moo fa nekkoon kenn ci yéefar di yot di yot ba fekk ko fi mu tëdd jël jaase ji yee ko ba mu yeewu ne ko kan mooy dox sama diggante yow mu ne ko yàlla yàlla yàlla ba muy ñetti yoon jaasi ji wadd ndax waa ji dafa tiit yonent bi alayhi salaatu wasallam jël ko ne ko yow nag kan mooy dox sama digganteeg yow mu ne ko xanaa nga baal ma mu ne ko baal naa la waa ji toog waa dafa jaaxle ba demul dafa toog mënul dem ndax grandeur bu mel noonu nit koo xam ne da nga bëggoon a rey bëgg jël bakkanam moom mu wëlbatiku jekku la ngay xalaat lu mu lay def mu ne la baal naa la jéggal naa la waa ji duggul ci lislaam de waaye bi mu delloo ci xeetam moom li mu wax yonent bi alayhi salaam mooy ne mënaguma wax ne dinaa tuub ndax bu ma koy def day nekk lu sincère waaye fu ma fekkeeti kuy xeex ak yow wala muy am lenn lu muy gàllankoor sa mbir su ma ko ko mënta tere dootuma ci dugal sama loxo dellu ci xeetam ne leen jitukum min xayri naas maa ngi leen dikkee jóge ci nit ki gën ci doomu aadama yi laa jóge muy muhammad ibni abdillah alayhi salaatu wasalaam loolu moo tax ba tey jii ñu tudd turam di julli ci moom waaye anañu soxor ñi fi nekkoon daan mbugal nit ñi kan moo leen di fàttalikooti kan mooy wax waxi firawna kan mooy wax waxi hiraq la kan mooy wax waxi ñu xeet yooyu tyran yooyu nga xam ne ñoo fi nekkoon daan mbugal nit ñi ak fitnal kuy waxati seen wax lan la histoire jàpp ci ñoom lan kon grandeuru nit dëgg dëgg dëgg li koy def mooy capacité ak valeur yooyu noonu nekk ci moom yonent bi alayhi salatu salaam loolu lañ jàngee ci moom te moom mooy suñu royu waay alayhi salatu salaam mu nekkoon jàmbaar nekkoon ku am fit waaye am fit bi te kiwul woon dëgër bopp dëgër bopp goo xamante ni nit ki day nekk jusqu'au boutiste boo xam ne bu ngànkee du bàyyi yonente bi alayhi salaam fit bi mu amoon fituk njàmbaar la ibnul qayim nee na différence su ñaari mbir yi ñu bëri duñ ko def mais lu am solo la ibnul qayim nee na jàmbaar njàmbaar gi ci xol bi lay nekk ci dal guy nekk ci moom ak mën a muñ ak mën a dékku ci ne situation bi lu mu mën a laaj da ngay gis mu am sang froid te loolu mooy jur li ñu tuddee rabatatul jesh imperturbabilité muy nekk nit ku dal koo xamante ni caaxaan du la perturbé saxaaba yi situation bi da daan ñàng ñàng ñàng ba ñu jaaxle buñ ñëwee ci moom bu ñuy toogee ci wetam rek gis sérénité bi muy àndal ak dal gi mu àndal seen xel dafay dellusiwaat seen xel dafay dal loolu foog nit ki am benn fit ak courage bu nekk ci moom bu tax mu mën a dëkku yenn mbir yi waaye loolu ak ŋànk ne faw day dagg muy lu ñu tuddee al jura wa tahawur ibnul qayim nee na bokkul ndax nee na jura moom ki koy am nga xam ne moom day salfaañe rek yoonam newu ci nee na loolu du njàmbaar nee na loolu ci li muy juddoo mooy ñàkk bàyyi xel li ngay def la muy jur ci ay yàqute ndax jàmbaar lu mu am am fit terewul li muy def mi ngi xool ndax li muy def mi ngi yàq wala mi ngi defar bu gisee ni li muy def wax dëgg yàlla amul njariñ yàq la lu mu am am fit day bàyyi ndax xelam lay jiital waaye nit ki bu jiitalul xel mu rafet moom la muy def kenn du ko mën tuddee jàmbaar loolu kon dafa war a nekkaat tamit qualité boo xam ne bu ñuy fekk ci leader dëgg la fekkaat ci moom wàcce sa bopp am humilité xam doomu aadama nga fàttaliku sa démb yonentu bi alayhi salaam nit ñi tegoon nañ ko foo xam ni bu melul woon ni mel tey dañ ko yàlla ju ñuy jaamu lay doon bu yarul woon ñi mu nekkal insisté ci ñu bañ ko weesale fi ko yàlla teg kon tey dañ koy jaamu comme ni ñu jaamoo yàlla di ko bokkaale comme ni ñu ko daan defee yonent yi ko jiitu waaye lan moo tax xeetam àgguñoo ko moom foofu malgré ni ko saxaaba yi bëggee woon ba àgg ci moom foo xam ne jéggi na dayoo mosuñoo dépassé limite yi ñu war a yem ci moom mooy musukuta nangu nit di jël sax baat boo xam ne yelloowu ko nga ko koy jëmale nit mës na taxaw di wax di xutba wax ji rafet kenn jug ne ko macha allah wa shita bu soobee yàlla soob la mu ne ko ndax danga maa bëgg a def bokkaale booy bokkaale yàlla ci saa si la ko freiné mës naa ñëw toog nit ki naan ko yaa na wabna sayyidina yaa xayrana yow suñu suñu sang doomu suñu sang yow ki gën ci mu ne ko wax leen lu ngeen xam te ngeen noppi jaamub yàlla laa ana abdullahi mu jëfandikoo baat baatu jaam jaamu yàlla laa di yonentam yam leen ci loolu bugguma ngeen may weesale fi ma yàlla teg loolu mooy màgg loolu mooy dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg màgg ak yëkkatiku mooy nga xam ki nga doon bañ di weesale sa bopp fi nga xam ne fa nga yem ndax nit ki ñàkk xam sa bopp rek mooy tax nga yóbbu sa bopp foo xamante ne àgguloo fa te saa boo ko defee sonal sa bopp sonal nit ñi yonent bi alayhi salatu wasallam qualité yooyu moom moo nekkoon ci moom mu bokkaat ci tamit yërmande ji nga xamante ne yàlla defaloon na ko ko mu nekk nit ku nit ku am yërmande ci nit ñi nit ku am ñeewent ci nit ñi ñeewent goo xam ne terew ko woon nekk ku am caractère Ibnul Qayyim nee na li gën a jafe mooy boole ñaari qualité qualité benn bi mooy nekk ku lewet ku am yërmande ci nit ñi ku nooy ci nit ñi ba noppi nekk ku am caractère ñenn ñi dañuy yaakaar ni am yërmande ak nekk ku nooy mooy ñàkk fayda ñenn ñi yaakaar ni am caractère mooy tàng xol naqari deret soxor benn ci yooyu nekkul lu jub juste milieu bi mooy nit ki nekk nit ku nooy ku am yërmande ci nit ñi ci ni muy jëflanteeg moom mu nekk règle générale waaye du tax muy wàcce boppam bay ñàkkal boppam fayda ak di doydal boppam te loolu mi ngi gën a feeñee ci jëf ak doxalin yoo xam nit ki da koy jombul boppam ci loolu la nit ki di yëkkati ko ci bëtt nit ñi ba ñu jox ko cër respecté ko pas ci xol bu bon bu mu leen di wan nit ñi bu ñu lay wekk di la respecté li ci ëpp ci sa hauteur booy jël ak esprit de dépassement ak yow sa bopp looy inculquer sa bopp imposer ko sa bopp ci sa doxalin ak ci sa nekkin lu tax nit ñi gis ne yow mii ku ñu war a respecté nga yonent bi alayhi salatu wasallam juum na ci julli ci jàkka ji waroon a julli ñeenti ràkka mu julli ñaari ràkka sëlmal dem fekk benn bant bu nekk ci jàkka ji mu wéeru fa taxaw tegale ay ñaari loxoom saxaaba yi ko gën a jege bi mu taxawee noppi ne nii kenn si ñoom ñemewul ñëw di ko laaj ne ko julli gi lu tax nga def ko ñaari ràkk malgré liñ ko doon miin miin miin ak li ñu xam ci moom ci lewet ak yërmande yépp noppi gi mu noppi noonu pour rek interpeller ko laaj ko ci julli gi mënuñu ko ba jenn moo jóge fële juñ doon tuddee dul yaday ni soog koo laaj ne ko julli lu tax nga def ko ñaari ràkk te defoo ko ñeenti ràkk borom moo xam ne loolu ci lu mu doon dellu ci lu muy dellu mooy hayba bu mu amoon mooy benn caractère bu nekkoon ci kawam ci moom boo xam ne bu mu saan toog noppi sax pour nga interpeller ko wax ak moom te waxul day nekk problème ànd ak loolu xale yu ndaw da leen di romb ca mbeddu Madina yi di leen nuyu di kaf ak ñoom di foo ñoom ab jànq xale bu ndaw bu jigéen da daan ñëw am na sax soxna soo xam ne xelam neexul woon ca Madina da daan ñëw fekk yonent bi alayhi salaam toog mu ne ko dama laa soxla koo ko jug ànd ak moom alayhi salaatu wasalaam dem fajal ko soxlaam ñëw toogaat àggoon na ci yërmande ak ci woyof foofu waaye àggoon na tamit ci caractère bi ko yàlla joxoon saxaaba yi ko jege woon di ay kilifa bu musaana noppi waxul sax duñ ñemee wax ak moom li mooy melokaan yenn rek li ñuy gis ci yonante bi alayhi salatu wasallam soxla ko delloo si waat lool ci jamono ji ñuy dund yàlla nañ yàlla defal tawfiq yàlla nañ yàlla sàmm yàlla nañ yàlla defal jàmm rabbana atina fi dunia xasanatan wa fi l axirati xasana wa qina adaba naar rabbana la tuzig qulubana bada id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka anta alwahab allahuma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain qumu ila salatikum yarhamukum allah